mom mi ngi ci kasso bi Moussa Fall limu wax lerr na nañ ci table Macky Sall Moussa Fall nee Macky Sall je vais t'amener la tête de Ousmane Sonko je vais le poser sur ta table Moussa Fall lol la wax Macky Sall ko dina la daggal bop Ousmane Sonko tegal lako sa table bi dina la daggal bop Ousmane Sonko tegal lako ci sa table bi Et depuis bu Moussa Fall waxee euh, euh, euh, Macky Sall mi ngi ciy dox seetlu leen bu baax remarquer len de len bàyyi xel ci parce que deuk bande bu graw ngeen ne il faut ngeen di bàyyi xel le minimum d'acte possible le minimum d'acte possible bépp mouvement de len ko bàyyi xel Moussa Fall bi nga xamni Ousmane Sonko dafa jog commencé ko tour Moussa Fall dafa yónni ay gendarme yu ko top Moussa Fall fexena ba créer embuscade ñu door garde corps Ousmane Sonko ci kasso yi Moussa Fall bayina topati Ousmane Sonko est ce que gisati ngeen la gendarmerie num mu won Ousmane Sonko lutax mu arrière topatul Ousmane Sonko est ce que gis ngeen légui la gendarmerie top Ousmane Sonko depuis bu mu jappé garde corps Ousmane Sonko est ce que ngeen mom Moussa Fall yónni ay gendarme yu top Ousmane Sonko leg Ousmane Sonko ken toppatu ko léegi la ban moment lañ commencé di top Ousmane Sonko nemmeeku tour bi ba mu garde corps Ousmane Sonko yépp Ousmane Sonko indiwaat né yeneen garde corps mais Moussa Fall toppatu ko <laughs> bo gis nga bo séq kacior kàccoor ak bandi la moindre euh, acte wala euh, euh, moindre bougement da ko wara jang C'est la reine des monstres. Il faut être super fuité. Il faut être, il faut être fuité. am ou brain brainu te. nga xam ni xoolal kuudéy sax un Coup de kuudéy Si vous c'était. ok BHR bataillon orange, rang basé au camp euh, de Diop wax je ma ko militaire yi wax nañ ma booy militaire yëpp ñu ngi ñëw di ma di di confessionné wu di wax seen xol ak booy gendarme yëpp ñu ngi ñëw di confessionné wu di wax li nekk ci seen xol ñoom ci boppam ñoo ma bàyyi loo xel lool na ma grand seetlul na ma grand seetlul ñun ñoo toppoon Ousmane Sonko ñun ñi ñëpp ay tiiral délit lañ ñoo toppoon Ousmane Sonko mais depuis bu Moussa Fall jàppee ay garde corps am yóbbu dóor ci kaso bi ba léegi da ko bàyyi muy dox mais neen na Moussa bàyyi ko de Moussa tak na ci ak Macky sàll ci taabalam ne ko dinaa la indil bopp Ousmane Sonko bopp Ousmane Sonko danaa la ko tegal fii ci taabal bi loolu moo war a doon rendez-vous bi nga xam ni makki sàll war na gisaat ak kii nga xam ne mooy Moussa Fall ci bureau euh, pale ba pour mu tegal ko bopp Ousmane Sonko ne ko bopp baa ngi nii mi ngi ciy dox calmement normalement et naturellement di ko teg ci temps di jël képp ku ñu jàpp ni toog nga ñu rey la ñetti éléments des renseignements généraux la arrêté kenn ki moom te lépp ci soupçon lañ ko teg kenn ki moom mi ngi ñu téye ci kaso ba c'est un gendarme ñaar ñi dañ leen a rey mooy Fulbert ak Didier donc ñoom ñett ñëpp ci renseignements généraux lañ ne maanaam ay information donc jàpp nañ ni ñooñu bu ñu leen reyee dinañ ñi ngi toogaat xool est-ce que am na ay information yu fuité waat bu fuité ñu ne kon am na ñeneen ñu des donc dañoo pare pour rey ñu bare baré, baré, baré, baré, moo tax booy yëpp daw nañ di confessionné wu ci man nu mu gën a di di bàyyeeku le plus rapidement possible expliqué lañ man nan la leen di toppee nag booy def leen attention xeex day am maayen xeex maayen Moussa Fall day dugg ci Facebook boy gendarmerie, yi di xool ba xam ñi ngi partagé daraay Ousmane Sonko wala ñu ngi partagé daray Pastef Moussa Fall noté Moussa Fall mi ngi every day booy gendarme yi ñoo ko wax every day all day Moussa Fall mi ngi yëndu Facebooku gars yi bëri na ci ay booy gendarme yu ngeen yëgul yu Moussa Fall dàq ndax daf leen a gis ñuy partagé daf leen a gis ñuy partagé Facebook euh, daray Pastef wala daray Ousmane Sonko mu dàq leen booy yu bëri ay gendarme ñëw nañu confessé wu ci man yónnee ma seen tenue yónnee ma lu ñu sol lépp ne ma man lii laa woon foofu kii ne ma lii ci haut commandement bi lii laa fa woon Moussa Fall damaa def tel Moussa jàpp ma tëj ma kaso tëj na ma kaso génn ma raje ma booy yu bëri yoo xam ni Moussa Fall dafa gis ñu def benn partage yu Ousmane Sonko walla ñu def benn partage yu benn élément Pastef Macky Ousmane euh, kii nga xam ne mooy Moussa Fall dàq na leen te boo yëpp ñi ngi fi ñii mu tëj leen ay 40 jours ñi mu tëj leen ñoom ñëpp Moussa Fall mi ngi leen di suivre te bu ma nekkoon nan la Moussa Fall xamee mbir ya daf ne dafa dem di suivre samay Facebook. benn xaw ma lit ci lañ koy wooyee xaw ma mooy mooy ki nga xam gendarme bi nga xam ne GIGN bi nga xam ne da doon sànni grenade ba loxo bi dagg muy Mouhamed Tonika. rappelez-vous dañ néwon dañ koy gaay yi defal li nga cotisation pour les parce que nous, nanguñu ko won yóbbu bitim réew Moussa Fall fi la ko fait des ak loxo bu bi moy grenade bi nga grenade mu ubbi ko war ko manifestation ko ba ci loxo mu Dag, Mohamed jël ko principal saboter donc am gendarme créer créer litchi créer ndimbal pour ñu dimbale leen Moussa Fall jàpp ñooñu ñëpp takk ba ñu dëgër nokk leen ci kaso yi génn mu ràjjee leen ñoom ñëpp sumbi leen bañu sax ràjjee leen parce que dañoo ñëw mu indi leen bureau saaga leen ay ndey ne leen yéen Ousmane sonk ngeen di jàppale ay waa patriote ngeen indi leen ay problème créer leen dóor leen ci kaso bi dàq leen gendarme yooyu yëpp confessé wu wu nañ ci man ak des documents avec lepp ak euh, bu len jappé mayu len sax pour ñu wut avocat kenn may Moussa Fall mayu ko nga wut avocat doole la la jaay ne Pastef nga bokk wala nga jàppale Ousmane Sonko am ñoo xamni sax dañu gis ay photo ak Ousmane Sonko ak euh, benn ci gendarme ñu japp ñoo ñepp duggal len ci kasso yi 40 jours toroxal len fa sans avocat ni rien ci tribunal militaire après dakk nañ len bo yaangi taxawal fi kañot ñi créé won kañot sax ñepp la dakk ci kaño y nga xamni moy mohammed tonika donc mom mi ngi di suivre bu ci Facebook bi mi ngi leen di suivre bu baax mom Moussa ci réseaux sociaux donc Moussa Fall dara intéressé wu ko éliminer képp ku partagé Ousmane Sonko wala ngay partager Ousmane Sonko wala ngay ni wala bëgg na def té ñom ñoo ñëw yak police gendarmerie armée nationale ne légui ñom dañoo am droit di voter donc boo jëlee euh, homme de tenue ne dañoo am droit voter donc moi wane ni am nañ droit bokk ci benn appartenance politique parce que ñoom nous yàq réew ñoo jël militaires yi jël gendarme yi jël euh, policiers yi ne am nañ droit voter donc ku def loolu moi nous am nañ droit donc appartenir ci benn parti politique te ku part ku ku appartenir ku war a mun appartenir ci benn parti politique war a am conviction ou partager loolu nonou ces idéologies donc Moussa Fall non la len di traquer di len top, di len japp di len tecc ci kasso yi di len yop ci tribunal militaire di len sosal di len tecc di len génne di len dàq donc luma len leen Moussa Fall mi dox ci liquider képp ku jege Ousmane Sonko wala ngay prôner Pastef wala ngay partager daraay Pastef moo tax ma ne leen booy ñëpp ñi ñëw gendarme yëpp policiers yi ne leen def leen attention xeex day am technique nit mun nga nekk ci moom microbe bu lay rey yow gisoo ko da di infiltrer système système boo ci nekkee danga nga koy infiltrer da fay dugg di ree comme ñoom di tàcc comme ñoom di wax comme ñoom di feccandoo comme ñoom fekk yow doo ñoom noonu nga leen di reyee mais boo on est fort On dañ lay éliminer le plus rapidement possible va les ëpp et te va ci donc comme nous vous il faut être futé sa un nay dox ngay calculer ci sur c'est super intéressant et important donc Moussa Fall est un voyou de la pire espèce vous connaissez leen Moussa Fall am a ñaari cabinet am cabinet bo xamni ñun ñokoy fay bu nek cabinet au commandement de la gendarmerie nationale mais Moussa Fall créé na mom cabinet bopam bo xamni yag na de mi ngi ko créé depuis bu mu manam gendarmerie Colobane brigade de recherche fofu le Moussa Fall créé gang bi nga xamni ñoy ray doomu adamay fofu le la Moussa Fall créé gang bi wax naa leen turu gang yi ba sonu gang bobu ñoy dox sal bu la ñoo éliminer imam ndaw gang bobu non ñoo éliminer ñi gang bobu ñoo donc gang bobu nee naa leen ay gendarme amna ñu dul gendarme lepp waxon na len ko tour yo yëpp bu dé yéen a ngi note boo leen demee ci live da ngeen di génn tour yëpp am des na yeneen tour té dina leen indi yeneen tour yi donc Moussa Fall dafa créer mom cabinet spécial am bu momal bopam donc cabinet bobu ñoy def saal bulo yi bu wuté cabinet au commandement de la gendarmerie cabinet est nak amna ay officier amna ay sous-officier amna ay haut gradé amna ño xamni xam gendarme qui militaire policier c'est des ces hommes de confiance mu créer len mu don ben bouclier bu mu préparer pour la liquidation wala pour lu salté ay infiltration am na ñoo xam ne sax ñii GIGN lañ ne ñii BIP lañ ne parce que BIP c'est la police GIGN c'est gendre gendarmerie booy bii nii dañ ko infiltrer BIP kii rey nii booy bii dañ ko infiltrer BIP boo demee boo demee euh, euh, ministère de l'intérieur da nga leen fay fekk mun naa la wan aussi seen gang bi seen gang bu gang bu la ñu yor gang bu garaaw ay milices yu doy waar yu tàng sax ay milices yoo xam ni sawaay non nous sommes di gens jox ñu di mais regardez, li milice la milices. ni Sénégal di entraîner xool leen comme armée Nous, le magistrat ministère ministre auprès du ministre de l'intérieur ministre auprès du ministre de l'intérieur Biram Fay, ni la gérer ñi ngi am ay salaire xool leen moo indil leen lépp rek ngeen xool ñi ngi ni ñi ngi ni gis ngeen ñi ngi ni ñu tegal leen ko benn par benn ñi ngi ni dañ leen di jàngal ay oto tout nu ñuy attaqué nu ñuy lepp ñi ngi ni ñi ngi ni ils sont payés tout xool leen ñi ñooy milice ñi ñoo nekk ministère auprès du ministre de l'intérieur ñii dañ leen créer juste pour rey doomu aadama ñoom dañ leen créer pour ñu rey doomu doomu aadama ñoo nekk nii waaw ma woon leen leen ñoo nekk nii ak drapeau Sénégal ñi ñi gis ngeen lii ñoom la seen oto la gis ñi ngi nii yéen ngi leen di gis ñoo nekk nii ñii ñoo leen di rey ba ngeen jeex tàkk boo leen jógul ci seen bopp ñii ñoo leen nar a ba ngeen jeex tak bo len jógul ci sen bop ñu ngi nii ñu ngi nii xool leen leen gis ngeen len ñu ngi nii fees dal ñu ngi nii wër auto APR couleur euh, marron beige gis nga ñu ngi nii ñoo nek né fess tepp fof vous avez vu yéen ko gissal sen bop donc bo len jógul ci sen bop mais ñi ray len c'est tout ñu ngi nii xool leen ba paré ñu téré ne wa élément Sonko wala benen garde amul droit sol tenue ba xoolal ñii dañoo sol seen tenue de ba def ci drapeau Sénégal té ministre de l'intérieur mi ngi doon napaté nan amuñu droit sol ay tenue wala sol xol leen ki ñi ñom la dé ñom ba ñoom dañoo ëppal sax dañoo def sax drapeau Sénégal comme armée comme armée ñi ngi leen di former wutal leen ministère di leen fay ñi lek ba sour di nan ba mandi dina poster lépp inshallah après xol leen ñi ngi ak arme yi xool leen arme yi xool leen arme yi ak seeni arme xool leen ak seeni arme lépp lañ leen jàngal te du ñuy policier du ñuy militaire ñoom ñëpp lañ dugal ci mini euh, seen ministre lañ leen wutal ministère parce que dañ leen wutal ministère milice la ministère ministère ñoom amuñu ministère de ministère lañ am parce que ministre auprès du ministre de l'intérieur amul fenn amuñu bureau amuñu dara

ñi yor ay ñi nañ ay fetal mun nañ tirer tout ñu ngi nii dañ leen koy won après ñu avancé ñu ngi nii xool leen leen bien armé bien armé gis ngeen leen sol am nañ tenue def ci drapeau euh, Sénégal vert jaune rouge ba pare yor ay fetal lépp tout dàll tout lépp lañ leen wutal comme ñu nekk ci armée bi comme ñu nekk ci a xool leen xool leen leen ba pare ñu jël ñi ñëpp ñi ngi toppoon Ousmane Sonko te usmaan Sonko xam naa xam na ko ñii ñëpp ñii ñëpp Moussa Fall la ñuy liggéeyal ñii ñëpp Antoine ñàkk jom la ñuy liggéeyal ñii ñëpp dañuy tiire am nañ fetal jox nañ leen grenade flash ball lépp lañ yor flash ball lépp lañ yor paaka tout jaas yi lépp lañ yor dañuy formé wu yor seen salaire di lekk ba suur di naan ñu ngi nii am ay oto yi seen oto yi la comme oto militaire couleur militaire jox leen ay oto ñi ngi fa nii Sénégal ñi ngi fa nii Sénégal léegi dañ leen intégré kii ci la bokk kii dinañ leen indil ñeneen ñi nekk ci gang bi ñu ngi nii Macky Sall la ngeen ni gis ngeen ñu ay raykatunit rek ñoo ko wër ay raykatu nit kese ñoo ko wër ma wax leen benn affaire boo xam ne ba na ma kenn indil photo Macky Sall bu mu sol lu rouge na ma ko kenn indil na ma kenn indil photo Macky Sall bu mu sol lu wër leen photo Macky Sall yëpp ci àdduna ngeen indi ma benn photo Macky Sall bu mu sol lu rouge wax na leen ko de nee na man du ma gis lu xonk <laughs> yéen xamu leen yéen yéen waa ji xamu leen ko sax wallaay nee na du gis lu xonk boo leen yoroon sagar wala ngeen sol du ma gis lu xonk Macky Sall du sol lu xonk du laal lu xonk du jege lu xonk du sol mukk lu xonk adduna du neex ba Macky Sall solal lu xonk loo ko ñawal nu rafet rawet bu amee lu xonk Macky Sall du ko laal dem leen indil ma t bu Macky Sall sol lu xonk dem leen indil ma yére bu Macky boo leen mës a gis Macky Sall sol lu xonk dem leen indil ma ko mun ngeen fee génne lu bari ay doomu aadama yu sol yu xonk mais Macky Sall du la ko solal jamais jamais du la solal lu xonk donc de leen ci bàyyi xel na bes bu ñuy dem di xeexi na ñëpp sol lu xonku na ñëpp c'est très mystique non benen affaire la c'est très mystique c'est très mystique ak sal du sol lu xonku du ko jege ay fétiche la lu doy war la motax mu ne leen duma gis lu xonku te du sol lu xonku du laal lu xonku du jege lu xonku ah, ok j'ai vérifié mais j'ai rien trouvé Donc gis ne doo gis mukk adduna du neex ba nga gis lu xonk ko ñawal nit am nga couleur yep suuf xonk du laal duko laal duko <laughs> dinañ dinañ ci affaire la <laughs> dama l'en dama len romb rek romb dama len signe rek romb damay signe parce que liñu wara donc comme ni ñu ko waxee Macky Sall président dafa décider toog dafa décider def troisième mandat mais defa décider encore encore ak Moussa Fall ne Ousmane Sonko du dem ci élection yi dama ciy ñëwaat encore di ci ñëwaat di ci ñëwaat wallahi billahi Macky Sall a décidé Nous, Ousmane Sonko du dem ci élection yi wala moom mu dem bàyyi Ousmane Sonko dem mu sàcc ci élection yi par la force de mbam comme nous ñu ko defee ci élection yi passé premier tour taxaw le premier tour la dem en 2019 voilà moom mu dem mais Ousmane Sonko du dem wala Dou dem Ousmane Sonko du dem Ben chance le Ousmane Sonko am ci élection yi di 2024. 2024 mille Macky Sall dem Ousmane Sonko dem mu dóor ko ci premier tour ay 54%, 53%, pour ci élection yi taxaw genn arme bi genn police bi genn gendarmerie genn milice genn tout taxaw armée jusqu'au dents hélicoptère yi di naw luñ musul gis ci Sénégal. L'hélicoptère yi di pour éliminer mettre le pays dans le chaos Ne donc te Ousmane Sonko la chance comme nous fait l'élection élection y passé élection législative mais Ousmane Sonko dafa juum dafa def erreur dóor ko fële ne ko doo doon député sa liste éliminer listam moom Macky Sall ñu doon wax naan moom listam dafa am problème mais listam def am kenn woo ñëpp ay suppléant am jàll nañ liste national am jàll na liste euh, département am jàll lépp jàll na léppam jàll na mais Ousmane Sonko moom listam euh, national bi jàllul ay département jàll te lépp jàll na lépp lu Macky Sall teg ci table bii depuis mars ba suñ jonn yàlla tey amul lu ci demul ak amul lu jàll amul pilule bu mu sottil Sénégalais yi bu doxul depuis mars daf ne woon li fi amoon du fi amaat daf ne woon lu woon woni na Sénégalais yi xamuñu kii lan lay wax ndakate daf leen wax ni dangeen maa jekk woon doole ma jekkuwaat dinaa préparé wu ci armement préparé wu ci ay arme préparé wu ci nit préparé wu ci ray préparé wu ci tëj préparé wu ci toroxal préparé wu pour écraser bépp opposant bu taxaw sama kanam par tous les moins te boobu ba léegi amul lu mu jàll benn système am bu jàllagul Ousmane Sonko doo dem doo doon député Ousmane Sonko doonul député seen liste doxut listam doxut ñëpp taxawoon naan waaye benn bokk yaakaar seen liste bi yàqu na seen li seen dem dugal nañ bopp dugal nañ ba dugal tànk ba benn wee desu fa ñu jël Ousmane Sonko ne ko yow doo duggee bopp tànk ngay duggee rocc ko dugal tànk yi bàyyi bopp bi ci biti amul lu jàllagul ci élection yi nga xam ni Macky sàll wala li nga xam ne pexe la pour Macky Sall di jéem te sottiwut te doxut amagut donc la mu waxoon démb ak bërki démb mi ngi toog ak gaayam di leen wax ne waxoon naa leen ne lu woon du du amaat bañ fi jógee di wax waxu marche Macky Sall la léegi bàyyeetul gars yi sax di génn seen kër yi la leen di jëlee amul benn doomu sénégalais bu nekk ci kaso bi jamono jii te nga nekk opposant koo xam ni ci marche lañ la jàppee ñi nekk ci kaso bi yëpp seen kër yi lañ leen fekk ak si plage Karim khunu Xax këram lañ ko fekk Cheikh Omar Diagne dafa ñëw wuy si ñu jàpp ko pap ale ci otom garage Dakar garage muy defar pëna amul Ben sénégalais buñ japp ci marche xaratul sax marche seen kër yi la leen di fek di leen loqati di fek gars ci seen kër yi di leen loqati di leen yobbu di leen ray di leen simuler ay noyade di leen teumbal ci maire bi xaratul marche xaaratul maanaam les gars yi ci biir kër yi laa leen di fekk di leen loqati di leen rey di leen loqati di leen tëj di leen loqati di leen toroxal di leen loqati loolu lay def léegi loolu xanaa booba gën a dee mi ngi dérouler plan am normalement di ko teg ci temps léegi xaaratul sax gars yi di ko provoqué mooy dem provoqué leen fekk leen seen biir kër yi fekk leen ba seen ndey yi loqati leen ci seen pooju ndey yi dóor leen ci kaso yi loqati leen ci seen pooju ndey yi rey leen loqati leen ci seen pooju ndey yi toroxal leen te mi ngi dox nongo jóob muy dox soxlaam ñi jàpp koo fi tudd Mamadou Seck mu fekk ko place jàpp Ousmane Seck ñu fekk ko place jàpp moom ak doomam bu ndaw mu téye doomam bu ndaw di ñu ñëpp donc amul benn doomu aadama boo xam ni dañ ko fekk ci marche wala muy jéem a dox wala muy rassembler ñu jàpp ko ñoom ñëpp donc waa ji pare na waji para na de para pare na ba tok di xaar léegi nak ñi wara affronter ñoo am problème ñom ñoo nek na wa bon ne xaar fii ki Ousmane jagn de këram dañ ko wo mu ñëw ñu japp Papito Kara këram dañ ko Amidia këram ñoo ñu seen kër kenn marche ci kenn demu ci sanni xeer seen kër wala ñu wol nga jóge sa kër delu delluwaatoo ci kasso ba nga yewoo donc mom mi ngi dérouler plan dawul deltuwul dew demul delul genn ginnaaw mi ngi rey coow jibul mi ngi rendi coow jibul mi ngi tëmbal ci géej coow jibul mi ngi daggate coow jibul mi ngi tëj coow jibul 17 millions de sénégalais benn doomu aadama bu taxaw taxaw seen digg bopp yi di leen day te kenn du wax di leen day ay biir buy daw seen xoolal seen seen yaram yi fees dal ak biir buy daw ñu naan ah fomp mais <laughs> boo arrêté wul sa biir buy yi may wàcce nii pour pour jigéen ah. non ma ngi xaar jour dina ñëw ha ah. non jour dina ñëw ka mu na puc ca kaw puc ca sa ubi ubi ku caaya ji puc ca kaw bir bi nan sa bir bi di daw oh, di di rogalat sa yaram bi nga ah, ngay fomp nan <laughs> xaar rek des fois nga macc ko sax mar mar bir bi daawee macc amu amu problème saf na xorom mais lii yëpp dina dakk xawma kañ lay dak nak donc jàpp leen ni nañu topé won Ousmane Sonko

l'article tel tel tel de la constitution du mars 2024 ainsi que monsieur Macky Sall euh, va euh, amener le droit dem troisième candidature Alors qu'est-ce que c'est baajo mi ngi toog ñu koy jox salaire am ay millions dugg 4-4 euh, garde corps GIGN bu taxaw di ko garde mu nekk ci ginnaaw di dem di fanaanoo ay jabaram di yeewu di ju lijjantiwu leen moom dañ ko jox puy spécialement récitel ma Macky Sall ko récitel ma lii jour bu bu ma nee damay dem cooli ji ñoo récitel ma lii li ma la jox ni baajo liir na loolu ré mi ngi ci xelam buy ndékki da koy récité buy añ da koy récité buy reer da koy récité mi ngi ci doom yi sax mën nañ ko léegi Badio bu ñëwee këram sax xale yi nekk fa di réciter loolu waaw moom loolu mooy fëyam fëyam moom ay quelques la pare na ca léegi baaja day taxawaalu di xaar di xaar jour bu jotee donc comme moom gis na Macky Sall Abdoulaye Wade di poser candidature mu jàll mais dañ ko duur lu lu Abdoulaye Wade du Macky Sall de ba mu demee gars yi bàyyi nañ ko xeex nañoo moom mu rey ñëpp mais teewul dem na ba mu demee deuxième tour lañ ko mujj a gagné dañ ko sot kon Macky Sall xam na leçon bi que amul dem deuxième tour damay bàyyi Ousmane Sonko ñëw ñëpp ñëw ma bàyyi leen ñoom ñëpp ñu ñëw mu door leen premier tour par force hélicoptère yi di naaw char de combat yi génn blindé yi génn armé jusqu'aux dents solu gars yi dugg génn eh, gars yi sama eh, buntu kër quarante policiers fa ne oh, eh, hélicoptère baa ngay naaw avion baa ngay naaw laay laay la laa gars dugg seen suuf yi xam nañ leen de gars yi la ñuy def seen suuf da génn nii gis char de combat bi taxaw jàkkaarloog yow hélicoptère bi di naaw ci kaw nga waaw waaw waaw ngay dégg yuuxu xam nga sénégalais daa ragal dee ambulance déjà de sénégalais ngay gis ambulance bu romb ñoom ñëpp naan nii di faxa nopp loolu Sénégal rek nga koy gis adduna wër naa fu ne ambulance musuma gis tubaab bu ambulance romb muy faxas nopp sénégalais ambulance day romb muy faxas nopp corbillard romb mu wane ginnaaw mu wane ginnaaw mel ni bu wane ginnaaw gisul corbillard bi du dee <laughs> nga xam ni kooku dafa ragal dee kuy gis ambulance di daw nga war a gis ambulance dem cong ambulance bi sax xool ambulance bi mba xam soxlawul dara mais nga gis ambulance di faxasi nopp na na mucc ci yow de nangam nangam gis corbillard wane ginnaaw ne dama ko xool nga xam ne kooku daa ragal dee kon kooku bu demee ba dégg ay weew weew dégg corbillard yi wër hélicoptère bay naaw char de combat yi jàkkaarloog moom boo deful ndànk mu mu dugg ci suuf ne yaay ana rondal ga ñu ne ko mi ngi ni mu mu dugg fa ne bés bu hélicoptère yi arrêté rek nga wax ma ma génn <laughs> ñun duñuy ñuy naar malheureusement duñuy ñuy naar xam nga naar moom fit gu mu yor moom yaakaar naa ni ak nasaraani fit yu ñu yor parce que ambulance du leen romb ñu fa xasi nopp hélicoptère du leen romb ñuy xool hélicoptère bi lii lan la corbillard du leen romb ñuy wane ginnaaw kon kooku ñi mën naa song corbillard mais ku ragal corbillard nga xam ne gisé depp won ginaaw wan ginnaaw ku ragal corbillard ragal deug ambulance ragal deug sirène ah kooku mom pour lijjanti ko dina metti don duñu ñuy tubaab nar xana kay ñu dem ab malien yi fit xana ñu wala ñuy dem Mali difa def difa jang quelque ki pour am fit touti quoi ah, xam lool de moo ñu ci mëna genn waye dal xex bi day am de par force kenn mënu ci muccu xex bi day am de xawma nak dañ koy xex wala duñ ko xex

liñ mayoon Ablaye Wade ñu may ko ko ne non garaawul sax xoolal buñ buñ fi naree dee nañ ko bàyyi mu dem mais foofu noonu la ñëpp voté comme yi ñu def noonu ah na ñëpp voté contre la ñëpp voté contre <laughs> loolu moom mooy tey nga dee. bukki bi boo bañee mu dugg ci biir kër gi nga tëj bunt bi moo gën nga naan non na bukki bi dugg rek na bukki dugg mais bu duggee bu duggee bu ko kenn may dara <laughs> ku xef xippi balaa ngaa boo xefee sa bët yi balaa ngaa xippi mu lekk la mu warax la kon bés bu ñu juumee. ba nangul ko troisième candidature mu dem ci élection troisième mandat par la force de mbam malako la wax bu fekkee ni dem na ci élection yi waaye ma vous bu dem na ci élection yi premier tour du sax demante deuxième tour premier tour mu dóor troisième fichier électoral bi 50 et quelques taxaw Vous yónnee gars ñu dem discours RTS voilà def seeni woy ten ten ten ten ten ten ten ñu rang waaw ñu rang foofu boobu jël nañ gars yi tëj lañ seen biir kër yi ak char de combat yeeg fetel yeeg lépp hélicoptère yi di naaw ñu ñëw dóor seen discours jël naa affaire bi cinquante et un pour cent bàcc naa leen bu maay faluwaat léegi nag ñun ñi nga xam ne ñun moom dañ cee rey sañu bopp mënatuñ dara ah xanaa ñu toog rek gëm yàlla ñu toog fii moom joo jàpp sañu ceene faté faté Sénégal faté Sénégal ñi ci yoroon ay këyitu sénégalais sax jël ko ñi taal ñi ñi ñu jibile ñun tam fi di di taal di taal suñu këyit fi diko tal ko taal tëb tëb tëb muy tak muy tak ñun tam ñi jibile di yuxu <laughs> voilà jël drapeau Sénégal bi taal ko tamit man mom bobu dina taal passeport taal këyit jël sax drapeau bi taal xam nga bu boobaa léegi nag moom dootuma leen laayivalati quoi dootuma leen laayivalati sincèrement parce que xam nga lu ma j'ai plus rien d'un Sénégalais. taal naa drapeau ba taal naa passeport ba taal naa euh, lépp luy senegal taal naa <laughs> voilà waaye wax naa sax bo def na ma changer tour ba sax continue fi nek fi xam nga ne doon vrai c'est tout ma dee sax nañ ma suul fi parce que <laughs> ñun ñoo am problème yoy ay suul fee wala suul fi wala suul fee suul moom sa way suuf si yalla ko mom fu waaye suulu baax na fu suuf yalla ko mom yalla mi ngi fépp mi ngi yàlla nekkul Sénégal kese ci armeel ya fii amul armeel fii am na armeel ni yàlla amee moomee armeel ya fii armeel yi yàllaa ko moom ndax suuf si yëpp moo ko moom fu waaye nekk yàlla mi ngi fa <laughs> yàlla bu ñu yegg foofu nag donc voilà nu ma ko mun a waxee Macky Sall ab pauvre la wu amul dara ñu jël jox ko pouvoir mu utiliser pouvoir bi képp ku ko nar a yàqal mu rey la képp ku ko nar a yàqal mu rey la te pourtant Macky Sall ba muy takk oyof sër barki Rasulullah fukki dërëm yoru ko nee naa leen Jurbel la xamee foofu lañ tuddee woon fay Faye Sall oyof sër jamonoy oyof sër la xam Marème Faye Sall Marème Faye Sall di jàng secondaire secondaire Mamadou Talla bii di jangal fofu la xamé Maram Fay Jurbel Jurbel nak lan molen len fa yobone Omer sek mo len fa yobone mi don urbanisme Mota takone sen yaay ñu dem Jurbel ñom dañuy walu donc bo gisee ñu nan Saint-Louis duñu ay Saint-Louisienne lan mo tax ñu ay ay ay ay Jurbel wa lañ te pourtant ñom jangé nañ Jurbel nek nañ Jurbel lan mo tax ñu ne ñom ay Jurbel wa lañ te pourtant nek nañ Jurbel jangé nañ fa mun nek essay la gang gangu Jurbel bi nak ñëpp ñoo leen jité gangu Jurbel bi ñom ñoo leen jité ñom ñëpp ñoo nek fi ba ci sen ki bu mujj bi sax waji doon wax waxu dof bobu bañ dakkon ko fi ñu jël léegi ben gel tek ko fa ko xol leen bañi bëñ yëpp marron bañu bañu bañu Jurbel la kok ak Marème fay ñoo and moy waajo ju waxoon fi wax dof xaw serigne la xasoon xaw mo moo ne directeur moy sen affaire yi tek teg sen affaire jeune APR yoy ñu tek noonu sen affaire gang yoy ñu tek noonu pour lekum xaalis moy association des malfaiteurs des jeunes malfaiteurs de la l'APR mu jangé na lycée euh, technique Cheikh Amadou Bamba fofu la amé bagam xaritam bu mu doon àndal moom la jël légui tek fofu ku jigen ma nga fa donc gang ba yëpp am na keneen ku ko doon <laughs> keneen ku ko doon gérer tamit sant bi laa di jox Diop mujj na ko dàq sax ministre la woon kooku tam jëloon na ko fi kooku newoon na tam faram. deer waa deer ki nekk deer gel bi nekk deer ok dem leen xool kooku ak Marème fay ñoo doon kooku di papaam moo newoon directeur SAIB de Diourbel papaam moo newoon directeur SAIB de Diourbel Marème Faye di fa ñëw di fa àbb ay string ñëw fa di fa àbb ay cheveux. foofu lañ ko tuddee woon oyof sër ak lébaane beeg yooyu daam Diop daam Diop ministre xam nga dàq nañ ko daam jóob nekkoon na soo ex copain daam Diop. gangu daam Diop bi gangu ñoom Marème Faye boobu yëpp ñëpp ñu ngi ci nguur gi ñëpp voilà deer <laughs> dem leen xool directrice bi dem leen xool bu signé ba ñi ngeen xool waaye moo woon directeur SAIB ñu dëkk ci SAIB ci logement SAIB yi. maa ngi yor fii seen i photo ñu toog nii <laughs> Marème Faye ndeysaan donc fa la fay Faye jóge faram fay ñu jël seen gang boobu yëpp dem INSID jóge INSID yàgguñu fa sax yàgguñu fa yàquñu fa bañu faloo ñun ñëpp lañ indi ay ex copain Macky indi ex copine ñu indi seen ku nekk indi say ex ñu jël nguur def ko fay sàll timbo gasama tout waa greffage moo amoon cheveux naturel amuloon ay greffage ay ay mèche linda mèche darlin greffage yi mèche darlin mèche linda greffage lay ñëw di àbb foofu parce que kooku papam tane woon na moo nekkoon directeur SIB ñi naan ci ndoxu euh, Saalum beeg ndoxu Siin beeg ndoxu Jurbel ba ba seen bëñee soxlaa mu jël kooku ñëw teg ah <laughs> Marème Faye doon na àbb string de ah, dafa metti woon de metti woon na ci ñoom de torop torop torop metti woon na ci ñoom de wallahi la azim a ah, ñoom Naomi Campbell Naomi mees yooyu la donc Macky indi ay ex gelam Marème Faye indi ay ex faram ñu ñëw yor réew mi di ko gérer calmement mais Macky Sall bu muy dem di takk ji Marème Faye <laughs> dinaa leen wax lan lañ ko fa maram Macky Sall bu mu jógee Dakar ñoom maram fay dellu maam Abi Sey merci mooy directrice su DER maam Abi ak maram fay ñoo doon ñooy ànd suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñoo doon ànd loo ànd ak ay seeni far ñoo doon defandoo 31 décembre beñe beñe yooyu croquette croquette ñoo doon nandoo jus SAIB dafa def soirée SAIB SAIB de Diourbel soirée maam Ami Sey maram fay Sall nday ak baay wuccu peccor ko ñuy ànd ñoom ñaar di def seen seen croquette seen seen beñe croquette di def seen i si di defar seen fataaya di di xoolal di def seen soirée di di di àbb di àbb périg ñoom ñoo toog tey <laughs> yor réew mi yor réew mi di gérer ndeysaan ña ngay seddoo réew ma ñii ministre ñii directeur DG ñii directeur DR ñii directeur euh, D DG OLAC et cetera ñu seddoo rew ma yëpp toog ñi nek ci ambassade yi ñi nek ci consulat yi seen jabar yi nek ci ambassade ñom ñep seen jabar yaa ci ambassade xana xamu len lolu ñom ñep ñi jël réew mu seddo way sa way ku amone problème mu 100 francs nga ñew jox ko nguur nga xamni ni maram fay léegi day dugg ci pa pa pa pa ppp di dak baadoole eh dégagé dégagé maram fay tok ñax ni <laughs> sa way kooku maram fay du leen bàyyi noonu de boo leen yaakaaree ni da ngeen di ñëw këpp Marème fay nii jël jël réew mi jox ko keneen ngeen boo leen foogee ne noonu la boo leen foog noonu la yombee parce que Rasulullah Marème Faye naan seen deret sukk sukk nabataañ dina xar seen dënn naan seen deret yéey seen yàpp boo leen amul fulla boo leen bëggee génne Marème fay ci confort googu génne Amadou Sall ci confort googu génne Macky Sall ci confort googu génne ma cuucu fay ci confort googu billaahi ñaq ak deret moo leen fay génne loolu ñaq ak deret mënu leen fa génne ku yaakaaree ne ay waxtaan moo leen fay génne wala ay non dinañ ko xeex mais bon ku yaakaar ballaahi Marème Faye dina la sukk sukku na ba daan xar sa dënn muucu sa deret boo leen yaakaaree loolu waa ji sonnoon fii yor ay ballerine benn espèce ballerine ak robbu zipp tennis yooyu Marème fay doon sol di dugg ay insip di wiiri jaar ci buntu ba taxawaalu di di kal ay car fukki dërëm Euh, fukki dërëm laa am mu ne ko non fukki juróom la non s'il te plaît euh, euh, lu mu tuddati apprenti fukki dërëm laa yor jàppale ma fii laay wàcc madame fay def lu dund ba dee toog léegi di toog ci ay limousine di toog ci ay oto yu confort gu day waar ay garde wër ko sirène bi di escorté bi sirène ba yuuxu waaye ay ku bugg a wàcce madame fay ci ci oto boobu ay ku bugg a wàcce madame fay ci dundam googu boo wul du fa jóge de Tadef ne ni kole na de douze ans du douze jours de douze ans nga toog ci confort gu nooy nepp da nga naan nii ñu indil la loo bëgg ñu jus laa bëgg ñu ne rek tagal la jus orange ñu indil la orange yow bëgguma bi orange bi dafa xaw a kii bu jaune orange bu marron laa bëgg bu marok ñu ne ko rek tagal la ko piscine laa bëgg sangu ñu yanu la dugal la ci piscine génne leen ma ñu génne la fomp leen ma ñu fomp ñu fomp la rosa leen ma ñu rosa la maquillé leen ma ñu maquillé la ngeen <laughs> ngeen foog ni waaye naankatu buy bisaab boobu ak kel ngeen foog ni kooku ngeen bëgg a génne ci ay naxasa xandang yéen ñëpp lay ray. boo leen ko reyul mu rey leen boo leen ko tëralul rendi mu rendi leen <laughs> loolu c'est clair boo leen yaakaaree ni kooku noonu la leen di bàyyee noonu ngeen delloo ko ci bale renam ya ngeen delloo ko ci jupe tennis ya ngeen delloo ko ci buy bisaab ak kel ga gu muy xooj ngeen delloo ko ci ci ci euh, ab périg ba <laughs> boo leen yaakaaree ni noonu ngeen ko fay jëlee billaahi boo leen yaakaaree ni ñii nii nii nii fu ñu toog ba noonu ngeen leen fay jëlee Macky Sall bu muy takk Marème Faye Sall xam nga fan la dem bu muy duggee Saint-Louis kan la dem gisi Ousmane Masseck Ndiaye Ousmane Masseck Ndiaye Ousmane Masseck Ndiaye moo ko yóbbu kër waa liggéey un enseignant à Saint-Louis un ancien du PDS bu njëkk jàmm gën waa liggéey ne ko toogal fii xaar ma Macky Sall toog ci euh, euh, salon waa liggéey googu ca jàmm gën waa liggéey enseignant PDS ne woon PDS toog foofu di ko xaar moom Ousmane Masseck Ndiaye euh, yor voiture cinq boo xam ne Macky moo ko doon dawalal. voiture 305 la yoroon boo xam ne Macky moo ko doon dawal moo doon chauffeur am appartement ba moo nekkoon fu ma leen di wax dërkle kan moo ko doon fay Ibrahima Faye moo ko doon fay des fois mu dëgër Ibrahima Faye dem ci kaaba affaire bi dëgër Amérique ñu tëj ko ci kaso yi Samuel Sarr moo ko doon fay Samuel saar loolu moo tax moo tax ma naan Samuel Sarr ak Marème Faye Sall dañoo xamante du caaxaan Samuel Sarr yor na benn daggitu rastawu Marème fay Ben, Ben, diko dor diko wudang wang ba dag ben rasta bi téye maram fay naa ko kare. ma sama rasta mu ne ko dama koy garder dem len ci dem len ci Samuel sar yor Ben rasta wu maram fay ben bu koy dor diko dor ay gulaali wudang wang yi tàng jeer le bouti ben rasta ba maram fay ne ko ma rasta mu ne ko du ko dama koy denc souvenir la mi ngi ci mi ngi ci Samuel sar Samuel sar fayal na Macky Sall fofu mu dekkone ca deurkele ca kaw pharmacie ba fu ka rapide di jadde pour dem Grand Yoff ndax yag na ko fayal appartement ba des fois mu deuguer Ousmane Masseck Ndiaye moo ko fayal ya ok histoire la du deñ 305 bu Ousmane Masseck ndjay ba Macky Sall doon chauffeur ba Masseck Ndiaye na ko kaay fi fii wali gay Gueye na wali kay wali juk ñi dem seti ji umiyetu jallo yaay maram fay Sall boobu ma Macky Sall dafa commencé woon draguer Marème fay Sall année boobu la Macky Sall gëmloo Marème fay sàll ne day dem France <laughs> Macky Sall yàggul France jàngee na France yàggu fa de deux ans yi mag deux ans foofu la biiralee gabonaise ba Macky deux ans la def France biiral fa benn gabonaise am ak moom doom bu góor gabonaise ba mujj na doon sax ministre loolu moo ko yóbboon France. bobu mi ngi doxane maram fay ba legui parce que dafa commencé doxane maram fay jurbel ane bobu la dem France di commencé di di dugal ay carte carte carte téléphonique di wo maram fay di doxane maram fay di ko gemlo maa ngi kaaw bu mu ñewé tak la nangam bu mu ñewé yor fukki dirum dem gisi ji Ousmane sek Usman Ousmane ma sek ndjay lolu motax maram fay Macky Sall tuddee doomam bu jigen bobu yaayu jabaru Ousmane sek ndjay mais Macky Sall nag naa leen waxal dara moom nee naa la loolu moom dañ ko koy nangul nit boo xam ne la rancunier la mais boo ko defaloon dara lu baax dala koy fay sax giiru dund moo tax képp ku ko dimbale woon ci bu muy baax ba léegi yow mi ngi lay jàppale Mamadou Talla bi Macky Sall faloo ba léegi ministre la ministre l' éducation nationale de formation moom day taxawaat rek bu tànk Macky Sall jógewu fi day doon ministre bu Macky Sall faluwaatee beneen cinq mu Mamadou tàllaa dafay toog ak kan laaj leen ma kanoo ko jàppale waatoon te waru ko ma cuucu fay ma cuucu fay moo ko doon dimbale ca kër ga bu muy doxaan madame fay Sall di ko jàppale saa yu ñu ko waxee sa pat d'éléphant yi sa sa sa bon bon bon vent yi yi ngay solog nangam waaw ah, waaw bàyyi leen ko waay waaw leen ko waaw lii la xoolal waaw dafa bëgg xale bi moom parce que mooy seen taawu kër buñ ko ci laajee rek ah mais bàyyi leen madame mu dem parce que oyof la woon donc loolu moo tax rek moom bu mu faloo ba léegi gis nga nu mu fi tegee ma cuucu fay ma cuucu fay di détourné rek mu koy mu koy changé mu détourné ay milliards mu yóbbu ko feneen mu détourné ay milliards mu yóbbu ko feneen mu détourné ay milliards mu yóbbu ko feneen mille milliards ceeb bi mu yóbbu ko feneen coronavirus donc boo ko defalee lu baax barki démb ak barki démb te waroo ko dala koy fay tey moom moom côté boobu di cay reconnaissant quoi que l'on puisse dire loolu moo tax kan moo ko doon fayal appartement bi ba mu nekkee Derklé lan moko yobou fofu sax Derklé c'est parce que Ibrahima fay mo dëkkoon fofu ci Derklé Ibrahima fay mo len jëloon wutal len fofu nek ci kaw pharmacie ba bo fu rapide bi di jaddi Ibrahima fay commencé len fayal nek nek Amérique du Nord, di di pousse di jay drugs sometimes mu daanu ñu dóor ko ci kasso bi amul lu muy fayee Samuel Sarr guux dugal des fois mu deuguer Samuel lem ko ñu Ousmane Masseck gennel len ci ñu jóg ko daanu ñu amuñu dara waa des fois mu sol ay pat defam ñëw taawaa ah. des fois mu sol ay bon levant xam nga bon levant ay bon levant dóor ay ram jeez ak ay kàjj ma ma naaw bu ma luqi dàll yi nga xam day day dem ba ci kaw mu point yi def nii bu la kàjjee da ngay naaw parce que nii la def dàll yi nii la def dàll yu gudd def nii kàjj ma ma naaw am na tam bul ma luqi parce que mun na laa luqi dàll yi nii la def point yi boo ko def boo boo dëggee sa bët mu lay luqi bul ma luqi wala kàjj ma man naaw ay bon le vent ñëw taxaw sol ay costume mu mbàjj amul dara papa ja amul yaay ja amul kon fan la koy jële papa ja amul yaay ja amul maam ja amul ni yaay ja amul donc mu ñëw donc moom Masek Ndiaye ne ne ko toogal kër wali nga xaar ma mu wali, ak Waali wali ànd ak Waali ñu dem ba ñu demee Masek gis ummi parce que euh, nee naa leen bu ñu nekkee Jurbel kii nga xam ne mooy Macky Sall doon na ñëw foofu di doxaan di commencé di peeg oeuf sër di ko teg dil xam nga wax ak moom charme di charmer

ummiyeetu xam lan la ko wax <laughs> boobu jóge nañ parce que boobu jóge nañ Saint-Louis jóge nañ Diourbel delluwaat Saint-Louis bu muy ñëw Saint-Louis la ko fekk ba mu koy doxaan Diourbel la mu dem France bu muy ñëw fekk mu fase nañ yaay ja ñu dellu Saint-Louis <laughs> kii tamit Omer tamit dem na Saint-Louis parce que moom urbanisme la newoon mooy papa yi ñoom Malick Seck sen doomu ndey boobu Ousmane Masseck Ndiaye ñëw gis ummiyetu di ko wax waxu Macky Sall quoi moo ko demoon ñaanali ji jabar ummiyetu ne ko suñu loxo jotul fatik ni la ko olof bi la ko wax suñuy loxo suñuy suñu loxo mu ne ko ah mu ne ko jotul fatik moom Ousmane Masseck Ndiaye ne ko waaw mer luy loolu mu ne ko kumba ndar sàmba ndar loolu nag ñoom ndar waa ndar ndar yi xam nañ loolu seen yaay ndar ndar la ñoom duñu waa ndar ndar mu ne ko kumba ndar sàmba ndar <laughs> man loolu ci kii laa ko xamee woon ci euh, film laa ko xamee woon ci seen théâtre yooyu mu ne ko suñu loxo jotul fatik Isma ma Seck Ndiaye ne ko luy loolu mu ne ko kumba ndar sàmba moy manam ñun duñ may suñu doom ku donc tay ji buñu démé ba Macky c'est grâce à Ousmane Masseck Ndiaye mo ci dox ci wax Ousmane ma ñaata la yobbu bu muy dem di ji francs CFA laj fa joxe cent cinquante bu mu demee di baab di topp di topp di topp di topp di baab di topp di topp bañ buñ koy may Marème fay cent cinquante mille francs CFA la fa kii nga xam ni moom mooy Ousmane Masseck Ndiaye jox Oumiatou Diallo cent cinquante mille francs CFA te dërëmu Macky Sall demu ci dërëm boobu mi ngi ñëw mi ngi toogaat kër Waly Seck di xaar kër Waly Guèye safrula un enseignant dëkk jàmm gën foofu la toog di xaar ma Masseck Ndiaye ñoo ne ko wëy finalement may nañ la ko finalement nee nañ nee nañ kii euh, baax na léegi nangu nañ quoi joxe naa leen cent cinquante mille Macky Sall tëb si bi lu waaw waaw dërëm fukki dërëm cent cinquante mille fukki dërëm joxewu ko fa mu jibile foofu sant sant jóg jibile sant Ousmane Masseck Ndiaye ci salon wu waa liggéey ga ca jàmm gën Saint-Louis Saint-Louis mu jóg yuuxu ta kot waaw merci ay grand merci ma Masseck Ndiaye moo ancien maire de Saint-Louis papaam sax nekkon na fi maire de Saint-Louis mais ndeysaan jabar jara kat lum tuddu ndey dervish Derviche Ndeye Derviche ñëw commencé contane ah magi félicitations félicitations euh, merci merci merci merci dervish Derviche merci ndey Derviche <laughs> di siñ bëñam ya mo taxit mu am dom tuddé Baye ja amaat dom tuddé ko kan Ibrahima Faye Ibrahima Faye Mamadou Ibrahima Faye Mouhamed Ibrahima Faye lu tax Ibrahima fay mooy frère Marème fay lan moo tax tuddeewu ko waaye de laajte leen lan moo tax tuddeewu ko ma cuucu ak lu ko fa ma cuucu defal parce que ma cuucu yoru loon fukki dërëm Macky Sall dina ñëw sax ma cuucu ne <laughs> yoroo fa benn mbal boobu ah. mu ci fay waaye ma ngi waaye maa ngi lay doxal affaire yi ci mère Oumy ah mère Oumy dama compliqué nag mais amul benn problème maa ngi tag ak moom quoi maa ngi tag ak moom xam rek oui mais yoroo fa benn tawa desul fa benn tawa magi magi Malboro Malboro laaj lay tox xëcc Malboro laaj jox ko benn sa waay mais maa ngi koy géré maa ngi koy géré maa ngi koy géré Oumy naa ko géré non mère mère bi maay taw maay taw kàlla bi maram maram lu ma ko wax lay def xam nga maa ngi tag ak moom quoi yoru woon fukki dërëm Ibrahima Faye bi leen doon luwel néeg fayal leen ay appartement loolu moo tax Macky Sall deuxième doom après Baye ja Ibrahima Faye la ko tuddee tuddee wu ko ma coocu ndax ma coocu yoru woon fukki dërëm M3 la liggéey M3 moo tax bëgg cigarette moo tax sax M3 la mujjee liggéey M3 lañ ko njëkk a jël ouvrier muy taxawaalu foofu wax naa leen moom jaar jaaram jaar na kenkaayeri def na kenkaayeri fële fële ca di foncé jóge na fa def na euh, taxi taxi dakaar allo dakaar jóge na fa def na euh, oto frigorifique fii di jaay ay gejj def na ko seize fukk toog fukk def na ko ci stade toog fukk lu ne def na ko ci àddunaam kooku Macky bu muy ñëw nga xam ne Ousmane Masseck Ndiaye di ko joxal euh, cent cinquante mille Oumiatou Diallo moom ñaan ko tu cigarette la woon moo tax mënuñu ko tuddee doom nee naa la Macky Sall loo ko defal mu delloo la ko nag mu jël ki nga xam ne mooy Ibrahima Faye mais <laughs> waa xam ngeen Ruy Xale fan la ko doon jaayee station la woon foofu moom moo nekk kii Abdoulaye Wade place Abdoulaye Wade station essence la woon station essence la woon place Abdoulaye Wade xaw ma nag léegi lan la foofu la kii di eh, Mathieu Faye doon nekk naa pép pép comme Rico la glace pép pép Ruy gaa Ruy gaa ngi pép Ruy gaa moo tax war na war na baalu àq waa saint de te Ruy gi moomu ko de. mooy comme Ricola glace yooyu la doon bës puup puup ruy gaa ngi ruy xale gaa ngi puup puup ruy xale gaa ngi ruy xale gaa ngi puup nit yi toog fukk loolu stade ba la mooy seize yu fukk fukki dërëm fukki dërëm fukki dërëm mu wërale ko stade bi toog fukk toog fukk toog fukk toog fukk ah, nga jox ko fukk toog ci stade bi wërale ko stade bi ngay toog seetaan match ci nawetaan yeeg yooyu seetaan championnat bi ay lingeer toog fukk toog fukk toog fukk seize yaa ngi seize ngi toog fukk toog fukk

bu ne daf na woon ma Masek Njaay bés bu ma ameewaat góor dinaa la ko tuddee far ameewul góor mu am jigéen mu tuddee ko Ndey Derviche doomu Macky Sall boobu Ndey Derviche la tudd mungol rate boobu Ndey Derviche la tudd Ndey Derviche c'est la femme de ma Masek Njaay ñetti doom yi la yor kenn ki papaam la Mamadou mooy Amadou deuxième bi ibrahima mohammed ibrahima troisième bi mu tuddé ko kan jabaru ousmane masek ndiaye muy ndey dervish sal <laughs> ñi ngi ni amna bu amaton kenen jema xol euh, mu tuddé ko Samuel sar wala motax bu mu tëjee fi Samuel sar <laughs> say Samuel Samuel di saga sen ndey kaso bi bu ma fi yagge xolal ma ñak xolal ma la gëna gis nga Macky Sall Macky Sall dóor ko ay affaire diffusion de fausse nouvelle nangam nangam mu ne ko xolal demal ngeen ne Macky Sall man lay tëj ah, ma ñàkk sama nday bu ma fi toogee gis nga tam xarit bi bu weesoo bu ma fi toogee bu ma génnee naa génne rasta rasta maram fay bi xoolal moo koy wuurang wang rasta ma daggoon lépp laay génne kalaate ko mais Macky mooy baaloo la ma fay ko fi ay appartement ñaata yoon mais kii du nit kii dëmm la nangam xoolal gars yi dama waxu maram nag eh, waay neen day génne sa daggitu rasta ba de sa waay Samuel Ahmed nee na day génn Sébikotane war a sabare ma ngay yuuxu le mer na nag ah wax oh, mara fay commencé Macky ah man daal génne ko waa na génn na génn non non non non na génn na xalaatal démb ak bërki démb waaw lim fi ci ñooñu moo ñu fayal loyer moo ñu fayal lii xalaatal rasaba la de daggatu rasabu tol nii daggatu rasaba maram fay daa da koy posé di ko di ko dindi daggatu tol nii moo tax doful de motax jour tam xarit la ko Macky Sall génné jour tam xarit farek ñu ubi rebeus mu ta ta ta Samuel sa bandi be mi ngi ñi oh, di way way yor ben cigare di tox oh, oh, oh <laughs> day gën a daf leen ko war gaay ko doon set dam leen ngeen wax maram damay génn rasawa ma koy wayo man dana tok fi ci kasso bi ngeen may kii na ay division de di dof dof lo fekk mom dafa ñew mom tam di bandi bandilu xam nga ñë Macky Abdoulaye Wade daanu mu nekk fa di menacé waa xoolal Macky ñoom xam na boobu bu baax bu ma koy fayal loo ay eh, eh. Macky boobu du Macky bi léegi de Macky bi léegi dafa buur la de prince la dama nangu réew mi il faut nga topp sama ginnaaw ay dama topp sa ginnaaw lu may topp sa ginnaaw yow appartement bi sax mu doo koon fay maa la ko doon fayal ma fontoo Macky na ko i Samuel xanaa doo dégg dama ne léegi président laa duma duma ko nga doon fayal loyer xam nga mu rancunier la da nga def wala di wax ak mom muy muy golo golo lo <laughs> motax rek mu da ko division de force nouvelle rek ci kasse bi way da nga bëgg a neena le président la nga nek bi di xuuxalaate boobu Samuel mi ngi naan ah comme man mu dang wax naa jabar ja man bu bandi bandu rek damay génn ko <laughs> motax sa way nok ko ci kasse bi bu du won maram fay du génn fu mën dof dof lu trop moom fu nekk nii moom nee na tekk Macky jël ko jox ko pétrole ba muy wàcce ay ay fuy pétrole di wàcce ay barigo pétrole ay bateau pétrole waa di gérer courant ba nekk ci <laughs> Locafrique ba dóor fa ay mili multi milliardaire la bokk nañu ëpp milliard Sénégal Samuel Sarr bandi boobu multi multi multi multi milliard lu mu yor ci milliard bokk na ci à part Macky Sall gëm naa ni ñu ëpp Samuel Sarr bokk na les dix premier ñu ëpp milliard Sénégal les 10 premiers ñu ëpp milliard Samuel Sar bokku na ci mom ay bateau pétrole ak seen courant bi yëpp Samuel Sar ang ca bo len am gisé courant Samuel Sar ang ca <laughs> ak ay ak ay bandi la ilaha illallah ñu dér ay bateau pétrole lay wacce mom voilà moom mo tax lok Afrique ba tamit même chose ca yoy la won ngeen japp lolu donc il faut ngeen xam ñan ngeen amal affaire aussi c'est important ñu def ñu def ben flashback ci ñom ngeen xam maintenant comme nu ma leen ko waxee ki nga xam ni moom mooy euh, Antoine ñàkk jom laa ci laay ñëw ah ñàkk jom ma ñëw ci moom ñu te ngeen xam kan mooy Antoine ñàkk jom comme dóoral naa leen joor jaañ ba pare indi leen Antoine ñàkk jom kii mooy Antoine ñàkk jom voilà kii mooy Antoine ñàkk jom gis ngeen Antoine wonoon naa leen fi Antoine a ngi nii tey Antoine tey mo wax leen kuy bayam kuy yaayam fu mu bàyyee ko lepp Antoine voilà Antoine ngi ni ak quinzième tey ndaysan ki tey moy moy ministre ndaysan xol ko tey xol leen baadoolo bi xol leen ko rek ndaysan tey yalla tey way ki tey ki tey tey ki tey prince la ki politique kese kese kese def sale boulot tey mu bokk na ci ñi jiite senegal ndeysaan te yàlla moo tax man la ñii dañ doon suude seen dàll wallaahi di suude ay dàll seen dàll plastique bu daggoon dañ ko doon suude seen dàll euh, carax bu daggoon bu bopp bi daggoon dañ ko doon yóbbu ci uude ba di fay juróomi dërëm ki fukki dërëm ñii ñoo ñëw tey jiite réew ma gaa jël leen wóolu leen jox leen jox makki makki jël baadoole yépp <laughs> ok ngi dem Vous reconnaissez ce mec-là C'est Samuel Sass, c'est un traître. Il était substitut procureur de Lamine Koulibaly, un ancien président du tribunal de Dakar, qui a tout fait pour lui. Il a ay njabootam jël na leen jox ko ki nga xamni moy Antoine ñàkk jom pour mu placer len Antoine bagn <laughs> Antoine bagn te lepp lu am ko jox ñaari tali nag dëkk na fa ci benn todi xam ngeen todi xam ngeen euh, këru kii këru këru lu euh, euh, ñu koy waxatee sax këru këru booy foofu la dëkkoon ñaari tali nag dafa bëri ay kër dafa bëri ay këru bois <laughs> bois dafa bëri woon dëkkoon na fa ñaari tali Antoine ñàkk jom c'est le fils de Baye Maguette Diom baay Maguette Diom mooy baayam ndeyam mi ngi tudd Leena Ñaa baay Maguette jom mooy baayam tooñ kii nga xam ni mooy Leena Ñaa di yaayam maanaam takku ko mu koy tëddee di ko wulang wang ba mu jur kii nga xam ni tey moom laa leen woon sànq muy Antoine Félix ñàkk jom di agneau joor Dior Diagne l'agneau L'agneau est Doux Cœur barak Peuple de qui est né le 4 novembre 1974 à Khombol le 4 novembre 1974 à Khombol après ses études à Khombol il est parti à Dakar foofu nag la jun ñëw ñaari tali ñu abal ko fa benn barak a ñaari tali mu ñëw dëkk ci barak ba mbàkke yu fay moo leen ko abaloon mbakke yu fay bu maire de Grand Dakar moo leen abaloon barak googu newoon ca ñaari tali ñaari tali na barak nag jamono jooju moo leen abaloon barak néegu barak moom ak ñeneen Antoine ñëw jóge xombol dëkk ca barak ba ca ñaari tali kër gu sew très étroite mu dund fa lu tar ci lañ dem nag luwee ji ab puxus ca waagu ñaay foofu moom metti woon trop mu luwee ab puxus ca waagu ñaay génn ca barak ba barak ba nag Euh, lalu ki mo fa amone lum tuduti tuddati te mu bëri ay teñ ak ay ki moy lalu oh, way lal yi nga xamne day am ay mat am ay teñ affaire lal bobu mo fa nekkon lal bu tilim sax lal bu metti Antoine foko ko fekk da doon wokkutu parce que mat yi ñoko don mat yaram bi yëpp da am ay put put put put da doon wokkutu te gars yi dañoo foog dafa koso kosa Antoine ñak jom xam nga jamono joy ak febr koso kosaay lal bu fa neewon ca barak ba lal boobu dafa amoon bërëb fu ay matt néeg bu bëri ay yoo mais boo ko waxoon yoo lay wax <laughs> grand yi ne nañ Antoine bu génnoon di wokkatu pajaas pajaas yi néeg boobu pajaas moo fa amoon néeg bu kër gu étroit bu sew xat moom ak ñeneen pajaas ci pajaas la doon fanaan pajaas ba nag dafay doon am ay matt di am ay ŋar di am ay yoo am ay luy mais bu fu toog la doon def nii gars yi ba mu ne non yooyu yooyu yaram yëpp def ay da da ko ba muy di génne deret ki ma len di won ni donc pajas fa la don fanan ba mu lol dekk bi yep nan Antoine kosok sa Antoine da kosok Antoine da febar bu ñewon ci jotay ba sax gaay daw parce que dañ ko day wokkutu day tok di wokkutu ba yaram bi yëpp nak loolu nag matt def Antoine ñak jom ca pajas ba kon do gis ngeen yi ngeen di fal gars sonnoon ngeen jël jox leen ay ay nguur <laughs> jox leen ay milliards jox leen ay oto jox leen ay voiture jox leen ay maison jox leen ay piscine nga lépp <laughs> waay ay balaa ngeen di génn baadoole yi foofu ñu toog fanaankatu pajaas tey muy dem ci wër monde bi teg ci hôtel high level di tëddee caga ji <laughs> billaay xeex bi nar naa metti billaahi balaa ngeen di génne ñii ñu doon fanaan ci ay barak ci ay pajaas ngeen bëgg leen cee génne <laughs> il faut ngeen préparer mentalement ci ñan ngeen amal affaire dino yi waaw. joor jaañ magee na ko neuf ans du moromam sax bokkuñu donc mu dëkk waagu ñaay fa la takkee jabaram sa première femme travaillait à teeru bi. mu tudd Kiné jaañ Kiné jaañ la njëkk a takk boobu Antoine mi ngi wër Antoine kum for dóor kum parce que Antoine moment boobu bëggoon na am ku ko jàppale sonnoon na trop bu mu nekkee waagu ñaay muy dëgër pour ñu fay waraa weer bi di dee pour ñu fay Antoine doon na wër adduna bi yëpp fu ne mu leb fu ne mu àbb lu mu for jaay bu gisoon benn weñ nuñ ko doo doon ku buggoon jaay weñ la weñ yooyu përëm përëm përëm amoon na ay defarkatu ay ay euh, xaw ma tour de lëf la tudd xaw ma wetu waagu ñaay après waagu ñaay après bopp amoon na foofu ñu doon defar ay affaire cin Antoine day sàcc cin dem jaay pour mën a fay looye bu fekkoon nga teg sëb cin Antoine sàcc cin bi Antoine mii ñu ne ko mënoon sàcc la da sàcc cin jaay sàcc përëm jaay loolu pour mën a fay sàcc cin jaay sàcc përëm jaay lu mu sàcc jaay pour mun a fay looye ca waagu ñaay da doon rek da doon rek bu demee foofu yóbbu jaay donc ci la dem nag teeru bi di fa peeg màcc tuñ taxawaalu ba képp fa benn gel buñ naan Kiné Diagne mooy sa première femme Antoine mu takkanteeg moom kooku nag waaw cité port ah cité port la voilà exactement cité port foofu la amoon ouvrier yooyu doon kii ay feeraay ay affaire foofu Antoine foog weer balaa dee lay for feeraay bu mu for jaay ku mu sàcc sa cin jaay lu mu ravagé jaay armignon <laughs> armignon euh, jaay <laughs> Antoine day loolu la fayee doon fayee néeg bi nga xam ni parce que loolu liggéey waaw moo foofu moo nekk léegi Masaalikul naan exactement foofu la doon dem lu mu for jaay lu mu dóor jaay lu mu ravagé jaay pour mun fay loyer boobu ñëpp dañ doon wax bu Antoine tëlloon dañu wax denc leen seen cin yi denc leen seen ferraille yi denc leen seen weñ yi denc leen Antoine donc Grand Dakar wax naa leen ñaari tali wokkutu koso kosa wokkutu wokkutu pajaas ah mu jóge fa dem fii nga xam ne mooy waagu ñaay lu mu for yóbbu terrain foyer jaay lu mu for <laughs> armiñong përëm weñ lépp jaay donc Antoine tamit nekk ci loolu di di di ko di jaay hmm? ba takkanteeg na ki nga xam ne mooy Kiné jaañ boo demee ci kabine Antoine am na ko fa tudd Maxa ak ñeneen ñuy liggéey ci cabinetam ñooñu nag xam nga kan moo indi foofu <laughs> Maxa frère jabar jala tous ont été recommandés par sa femme Kiné Diagne ndax Kiné Diagne ko ci génne lu Kiné Diagne liggéeyoon ndeysaan ñëw jàppale ci Antoine bu mu koy doxaan ci la ko Antoine takke mooy premier jabaram Kiné Diagne kooko ci commencé woon génne Antoine moo tax Antoine bu mu faloo Kiné Diagne jaañ la ko yónnee quartier nit quartier quartier nit na ko ñi ñëpp jógale mu jël ñëpp la jël maxa boo demee tey dem leen dem leen ci ci cabinet ministère de l'intérieur di ngeen fa fekk maxa ak képp koo xam ne doon na nekkoon nga xaritu jabar ja jabar ji jox na la Antoine Kiné na la jëlal ma kii te Antoine wul ñoom ñëpp la jël donc léegi nag jàpp yaayam comme nu ma leen ko waxee leena ñaa moom am na jëkkër parce que baay ji da koo tooñ moo am jëkkër benn moment bi nga xam ni Antoine papa ji ñëw na mooy baay Maguette jom mi nga takk yaayu Antoine leena ñaa ca ba nga xam ni premier Euh, papa jiit la ñoom Antoine faatu na papa mi ngi ñëw moment bi nga xam ni jëkkëru yaayam faatu na bu mu desee de kooku moom mooy Pa Mbay Pa Mbay la tudd Mbay Mbay la sant Antoine ay doomu baayam Mbay lañ sant Mbay moom Antoine ñàkk jom moom rek moo ci sant jom Antoine ñàkk jom ndax baa ji daa tooñoon yaay ji mais takku ko am keneen ku ko ñëw takk ku tudd lan paa mbay ba paa mbay takkee yaay ja am nañ ñoom ñaar quatre doom quatre doom donc Antoine am na quatre frères et sœurs Antoine mooy lene mooy taaw Antoine ñàkk jom mooy taaw mais moom njom jom la sant ñàkk jom la sant mais ay doomu baayam ñooñu mbay lañu sant donc Antoine nag commencé <laughs> ci la dem gel bi ñuy besel bas, xam ngeen besel bas. Antoine ñëw kuf besel bas di di ko doxaan Antoine fen fen foofu fen yu tar ne da koy takk ko di ko ay Paris Antoine commencé naa nekk ci ci affaire euh, justice bi dugg ci xam nga magistrature bi substitut procureur taxawal ci gi ci la këfee Bessel lani l'animatrice la Bessel bass xamna bu baax Antoine mhm, mhm. man tumay may de tour bu ma wax kep ku bok ci affaire bi ce tour day genn xam nga boobu leg musu len deg Bessel bass touram genn na nak tay Bessel bass ak Antoine ñak jom xandalante nañ fu ne wudang wangante nañ fu ne xamante nañ bu baax baax baax Bessél xam na Antoine Antoine xam na Bessél boobu joor ñëwagul ñuy wutang wangante di doorante di golaale yu tàng jër bam saf sàpp ni kaani di ku naani bam saf sàpp ne kaani di golaale di golaali ku naani mu saf sàpp ne kaani ñuy wutang wang moom ak Bessél di ko fen naan da koy takk yóbbu na ko sax pari dem leen ngeen xool les parties intimes de Bessel bas <laughs> wow, tatoué na fa turu Antoine ñàkk jom ndeysaan aka badde woon ci Antoine waaw Antoine yóbbu na ko mu tatoué eh, parti intime mi mu tatoué fa Antoine ñàkk jom Bessel bas dem leen laajte nag kan mooy jëkkëram <laughs> ngeen laaj jëkkëram waaw nee naa leen gulaali yu tàng ba ba mu jël parti intime mi ami tatoué ko Antoine yóbbu na ko ba France waaw France la ko defee nag ah célibataire la <laughs> ba léegi day célibataire ba léegi ah xëy na xëy na xëy na dina jéem a dindi loolu parce que ah, mun nañ ko dindi nag mais day metti de day metti waaw day metti France Antoine yóbbu ko ba France. foofu la defee ñu wutang wangante foofu ba mu tàng jër mu mu jël eh, bagaasam bagaasam tatoué ko manam dessiné ci turu Antoine ñak jom waaw jaar nañ fofu ñom ñaar paré nak lako défé paré lako défé ko ah. waaw tuba bi ñoko dessinel euh turu ki nga xamni moy euh, Félix Antoine ñak jom ma nga ca bagage besel basia, ya. boko ubé ma moy fekk mu né yàmbalan xanaa dinde na ko nag <laughs> réew mee tàkk réew tas waaw mu fenn ko fa Il lui avait promis de l'épouser. Il l'a amené à Paris. La fille croyant qu'il allait être sa femme s'est tatouée dans ses parties intimes le nom de Antoine Tu jom <laughs> Bessel. après la wor mu wor wor après le bac Antoine a lu maîtrise en droit après il a fait l'ENAM en ce moment là sa copine devenir sa première épouse Waxon na len ko sa copine kan moom mooy Kiné Diagne Kiné Diagne donc comme nous ma ko waxé hmm? donc kii nga xamné moy mooy Kiné Diagne mu takko ko après nag mu dem après le bac il a eu une maîtrise en droit il a fait l'ANAM jël Kiné Diagne takk ko bu doon liggéey teeru bi bu mu ENAM la takk Kiné Diagne bu mu ENAM après il a il a été affecté à Djourbel, comme substitut procureur à Djourbel. da loon noté de lépp bu mu quitté waagu ñaay laaj leen ma fu dem il a habité près des parents de Marème Faisal Sall sur la VDN Bum mu wa guñay ñaay di sàcc lu mu for jaay bum fu mu dem dëkk ji près des parents de Marème Faisal Sall sur la VDN fofu la dem dëkk ji après mu dem dëkk ji légui mu ngi dëkk cité Mbàkke yu fay donc wax ko il avait décidé d'épouser à Paris la fille de euh, la fille Besselbas Comme ko ay elle et après wax bac maîtrise en droit enam tak jabar qui ne premier jabaram enam homme, enam après ñu affecté ko comme substitut procureur Si vous avez un ba léegi bàyyi <laughs> dafa ñëw loué après benn studio ñaari tali génn na nag ñëwaat na ñaari tali parce que dafa miin ñaari tali moom Antoine ñàkk jom mu delluwaat ñaari tali mais nag bii moom studio la mujjee loué <laughs> maa ngi commencé baax mu commencé nag génn boobu mi ngi liggéey Jurbel mais mi ngi garat mu wut benn studio ñaari tali nak Todiba après il est allé à Guédiawaye puis il est revenu au tribunal de Dakar il devient le substitut procureur de Koulibaly ma leen waxoon Lamine Koulibaly Il la le substitut procureur Il est le procureur je pense qu'il est, qu'il est même décédé, hein, je pense. Ouais. Donc, il a été président du tribunal de Kaolack, de Saint-Louis, de Thiès, avant de devenir président du tribunal de Dakar et procureur de la République. <laughs> na fait de Antoine mi C'est il a deux frères un qui est décédé On a un frère ami quatre Ben Jigen, a trois frères qui ki dafa décédé quand il avait 15 ans il a deux frères un qui est décédé nos deux frères là, un qui est décédé quand il avait 15 ans un moy et deux sœurs deux gourlam, deux jigéen Pambay quatre doom la fa bàyyi góor deux jigéen Antoine doomu biiral la muy trois góor ñaari jigéen benn góor bi gaañu donc léegi ñaari góor ñoo fa ne Antoine ak frère ak ñaari sœur donc léegi quatre lañ benn frère dafa gaañu bu mu amee quinze ans vieux mbay moo leen jur donc il est né hors mariage voilà amna ay doomu baay nak qui sont au bord de la retraite plus âgé que lui ay ay euh, mais moo mo len quoi mo len mak sa maman a quitté Khombol très tôt pour venir s'installer à Dakar à ñaari tali c'est pour cela Bobu, Bambey mo tak yaayam c'est pour cela motax tax Antoine bëgg ñaari tali xaw nak légui légui dama xamna do dootu taxaw fenn di wax waxu ñaari tali ko Amadou Ba rek moom tam wa ñaari tali la mais doo ko dégg fenn muy wax parcel lay wax te wa ñaari tali la baye judo ñaari tali yaam juddo ñaari tali ñi wa ñaari tali ñoom ñoom ñi wax parcel mom mu juddo ñaari tali di wax waxu parcel Amadou Ba ñom dañoy yep Sénégalais dañ fuñ juddo duñ ko musa wax donc sa maman a quitté xombal bu mu démé bañ ba pa euh, pa mbay tak ko ñaari tali lañ ñew dekk c'est pourquoi ses frères et sœurs sont nés à Dakar mais nak ils sont tous Mbay

sa maman aime le maraboutage yaayam ku bëgg sëriñ la ku gëm sëriñ la ku mën a sëriñtu la yaayam waaw kinne ñaa waaw ku euh, dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ma naan kinne ñaa kinne lu euh, euh, mu tëdd si leena ñaa leena yaayam ku gëm sëriñ la ku bëgg sëriñ la ku sëriñ jaral lu ne mhm. ak sëriñ tuwaate Yagul nak récemment sa sœur a eu un mari Il bi yaay ji dem ànd consulter un mara qui lui a dit de sacrifier des tonnes de riz et c'est le commerçant qui a fournit le ravitaillement Il un leen ko jaay marché Castor sëram bima lay wax amna ko ci mom mo am jëkkeur fan yi passé aji mbay la tudd aji mbay aji mbay ant koku moy Antoine ñak jom bi ngeen di gis ni donc il faut ngeen vous avez affaire à des démons à des vampires assoiffés à des démons à des imbéciles ay fils de pute ay ixo de putas léegi nag dama koy ñëwee terminer ko ci ki nga xam ni dëkk bi yëpp ñu ngi koy coow ñoom moom moo rey kii nga xam ni moom mooy ñaari renseignements généraux yi donc ñu ñëw ci moom parce que balaa moo gën a guddi mu ngi nii bokk na ci ñi rey bokk na nañ leen indil ñëpp nag mi ngi nii ñoom ñoo rey kii ñoom ñoo rey xaritam doomu ndeyam mooy dijje ñoom ñoo ko rey bon kii ma ñu bëri ñu ngi may laaj këram këram këram dinaa leen wax yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di leen wax ni Viviane nag daw na Viviane Dioum daw na instant yi mi ngi États-Unis mi ngi la naturalisation Viviane Dioum Viviane faat jum ki nga xam ne moo newoon ci Adji Sarr daw na gis naa la yow Viviane ba nga demee New York John eh, aéroport John Fitzgerald Kennedy ak sa ponkalaay nga dem jël chaise ne yow munoo dox ñu teg la ci puus puus di la puus <laughs> Viviane yaa réew <laughs> man bañ ma ak sa ñuulaay ak sa xasawaay ak sa ponkalaay sa yaram yëpp dafi rew ñu teg la ci pouce, pouce, di pouce pousse nga ne yee mënoo dox léegi nag donc Viviane bu aji Sarr Rismon Diis dem na États-Unis voilà ma ngay wër naturalisation mooy comploteur boobu noonu bokkoon ci affaire affaires euh, di représenter Dior Diagne bokkoon ci ay affaire aji Sarr bi mi ngi préparé une protection pour la nationalité américaine ngeen xam loolu voilà mi ngi Maryland l'état de Maryland boo leen demee l'état de Maryland ma nga fa Viviane gis nañ la yow ak As Diop ngeen ànd ci Thanksgiving bii jeudi jeudi bii passé jeudi bii passé bërki démb yow ak As Diop yéen a ngi ànd ci Thanksgiving bi di dugg ci magasin yi waa Maryland l'état de Maryland Viviane ñàkk jom mi ngi foofu ma ngay wër nag ay këyit ma ngay wër national euh, naturalisation américaine Viviane ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax ma nga fa ba mu ñëwee puus puus la yor ñu puus ko euh, euh, John Fitzgerald Kennedy ñu koy puus américain yi di ko puus mu ne munul dox nee na handicapé la <laughs> nee na obèse handicapé dafay bëgg a wax ne dañ ko bëgg a rey Sénégal dafa nekk en danger xam nga ci affaire aji saar et cetera mi ngi Maryland doom ji fa lay sëy doom ji am na doom Viviane am na sët doom ji mi ngi Maryland fa lay sëy doom bu jigéen waaw jëkkëram moo ko yóbbu Amérique am na fa doom mi ngay seet doomam yaayam tamit ma nga fa Viviane yaayam ma nga fa yaayam ma nga fa doomam mi ngi fa doomu doomam mi ngi fa sëtam ñi nga fa donc Viviane nga Maryland kii nag nga xam ne mooy Jérôme Banjaki, C'est un actionnaire du célèbre bar de Fougon. Fougon. Fougon, c'est la cuisine en langue mancagne. Jérôme Banjaki mancagne Actionnaire qui bar Fougon, qui signifie la cuisine en langue mancagne. C'est le cousin à Valérie Valkidjo Bandiaki. Valérie Valkidjo Banyaki. C'est son cousin, Mom Jérôme Bandiaki. Jérôme Banyaki, nak, mi andak Macky depuis 2011. Mom, qui nga moy Jérôme Bandiaki. ngeen won nañ photo bi ngeen jàpp loolu moom ak ñeneen la woon Jérôme Bandiaky bu mu ñëwee nu ma leen koy mën a mi ngi ak Charles Prera Amadou Gueye qui étaient des anciens gardes rapprochés du président Macky Sall depuis 2007 2007 en 2011. 2007, Charles Pereira, Amadou Gueye, Jérôme Bandiaki et compagnie étaient des anciens gardes rapprochés du président Macky Sall depuis 2007. Aujourd'hui, ils ont été accusés par certains de leurs anciens collègues de vouloir se manifester devant la presse pour faire des réclamations envers le président de la République. Donc, Charles Prera nous sommes dañuy pour ternir l'image de Macky Sall parce que bu mu faloo am na ñum ci baye am na ñum ci bayul ci la liggéey la Macky Sall mu ñëw traître le musa je ne serai jamais avec un groupe qui tente de ternir l'image du chef de l'État ñom ñu dem parti Alliance de la République Mom taxaw na wax ni il a recruté beaucoup de jeunes qui sont devenus vigiles à l'aéroport chauffeur à la structure servir le Sénégal ay chauffeurs des ASP ñooñu ñu bëri Jérôme Bandiaky indi na leen ci gouvernement bi jox leen gars yi ñu leen di garder ak ñu muy jël aéroport ponkal la dal, ponkal la ci réew mi ponkal la ci réew mi moom kii nga xamni ne bokk na ci ñu ray ñi nga xamni ñom ñoy ñooy Didier ak Fulbert moom Jérôme Bandiaki mi ngi ni ki assassin la mi ngi dox nak bo ko mënulul dara Macky Sall du ko def dara mi ngi ni moom Jérôme Bandiaki mi ngi ni moom ak Macky Sall mi ngi ni moom ak Macky Sall gis mi ngi ni moom ak Macky Sall gis ngeen ko Macky Sall la ngi mi ngi raykatu nit baagi ni donc euh, voilà Nous avons sniper Nous lañ sniper il a été aussi garde-corps de Racine Si. il a été garde-corps de Adama Faye il a été garde-corps de Mimi Touré Mom Jérôme Bandjaki. aux premières élections législatives avec le régime de Macky Sall, c'est lui qui, était chargé d'acheter des véhicules de campagne pour Racine, des Range Rover. Il a alors bari pour mu jënd ay Range Rover pour Racine si jox ko ay mille mille millions pour mu jënd ko ay Range Rover première élection législative bi nga le régime de Macky Sall C'est Jérôme Bandiaki. Jérôme Bandiaki il est dans l'entourage du général Moussa Fall. On l'appelle Sniper. C'est le chef du marron feu, marron du feu. Madame Nirvi Makissali, Jérôme Bandiaki, mon chef. C'est ami intime et garde-corps de la famille Faisal. Il fait partie des meurtriers et de tous les meurtres non élucidés de la bande à Moussa Fall et à Makisal. Jérôme Bandiaki, le fantassin, assassin, dit sniper. Jérôme Bandiaki comme ni ñu leen ko waxee day entraîner dañ ko jël dugal ko ci ministère de l'intérieur boo leen demee ministère de l'intérieur dañ ko fay fekk ci ministère de l'intérieur lañ ko intégré muy jël ay nit raykatu nit yi leen dugal ministère de l'intérieur ay raykatu nit di am ay salaire mom Jérôme Bandiaky concentrez-vous gars ma gëna mëna bloquer duma bloquer après dinaa len bloquer concentrez-vous bay len tontante yi ay bay len tontante yi nit mënu fi bind bind bind ba ma bàyyi li wax y'en yéen lay waxal de waxuma ñuy bind de man ma len bàyyi noonu nit mënu fee bind bind bind ba ma changé li wax nit mënu fee bind bind bind ba ma dindi limay wax kon kay waxam bobu amul sens bo len ko tontu do am sens am leen tuttu fulla bàyyi len ñuy wax ma len bàyyi noonu ma paré bloquer effacer dem sama yoon ah man lay man la ñuy waxal te man liiruma ko dégluwuma leen faalewuma leen concentrez-vous waay am leen tuuti fulla sen bop man ko am fulla la te kuma top di nga am fulla bàyyam bu taxawon fi wax 40 ans du tax ma massager limay wax concentrez-vous ngeen bàyyi ku len di ku len di euh, na wax lañ wax lu len neex ma pare effacer bloquer dem sama yoon ok Jérôme Bandiaki di sniper il était un immigré à Paris où il travaille comme agent de sécurité donc si mu jógee moment mu deuguer ci mom mu daw Paris Nek fa immigré gis ngeen photo bi nek nek Vous ci euh Vous euh, mi ngi ni sax na len ko mu Tour Eiffel Tour Eiffel taxaw vous Vous yeen gis gis ci internet bi yeen am Tour Eiffel donc mu dem Paris nek fa euh, agent sécurité liggéey fa comme agent de sécurité il est même parti avec un passeport diplomatique en France Macky Sall jox un passeport diplomatique en France Pour la fa immigré voilà après après quelques mois de galère il est revenu au Sénégal Jérôme Bandiaki. Jérôme Bandiaki n'est jamais allé à la légion étrangère comme disent les autres Jérôme Bandiaki. Nous avons ay que Jérôme fait dafa demoon la légion étrangère musul dem légion étrangère Jérôme Bandiaki musu fa liggéey day fen day katch day duul waxul deug musul liguey légion étrangère France mukk waxna len leen immigré la fa defone liguey la laaj immigré lolou la fa def pare fa nek agent sécurité passeport diplomatique Macky Sall ko joxone mu dëgër keutch quelques mois de galère mu daw waxe tapet la donc kooku non di len nap non di len ray tapet bu mag la te dinaa leen wax ba wax len fu mu dëkk loo ko deful ci yéen la tapet bu magangi nonou amul fit France bu mu demee mu dëgg dafa daw waxaat donc Jérôme Bandiaky musul nek légion étrangère jéem na nag def na test bi il a fait le test il a fait le test mais on l'a écarté mu ñëw di leen wax naan ay légion étrangère il était agent de sécurité dans un supermarché le Clerc à Paris où il percevait 2000 euros par mois. Il était agent de sécurité dans un supermarché Leclerc, supermarché Leclerc à Paris, où il percevait 2000 euros. Point. Les gens étrangers, il réussir. D'accord. Donc, comme nous le il était garde du corps de Mimi Touré. Mom Jérôme donc Jérôme Bandiaky ci boppam bokk na ci ñi nga xam ni Moussa Fall teg na leen fi ñuy sanguinaire ñuy jàpp sénégalais di rey di tëral di rendi di yóbbu dañ leen yóbbu ba tubaabu jallaaw dóor leen ba ñu sedd guy comme ni ma leen ko waxee woon ak demuñu woon presse demuñu dara ñu tëmbal leen ci ñoom ñoom ñaar ñëpp ñu tëmbal leen ci ay piscine naq leen ci bañ bañ bañ sedd guy ba mënatuñ nokki ñoom ñëpp gang door nañ dañ leen daggate daggate këppati wax naa leen ko këppati dañ leen door dóor yoo xam ni ñaar ñooñu dañ leen dóor bañu ñu sedd guy ñu dugal leen ci piscine naq leen ci tubaab génne leen dugal leen naq leen bañu ñu sedd guy guy guy guy guy guy ñu diri leen diri leen jël leen teg leen ci gaal dem ba digg géej tëmbal leen fa koor yooyu noonu seey nii lañ leen reye dama ne DJ ak Fulbert ñoom Jérôme Bandiaky ñoo leen yanu ci ay oto yu ñuul kukk jël leen ñoom ñaar ñëpp bokkuñu fu ñu leen jëlee dugal leen ci oto yi yóbbu leen tubaabu jàllaaw wàcce leen fa solal leen i kagul dugal leen ñu junni ponkal dóor leen ba ñu takk leen dóor leen ba ñu sedd guy guy guy ñu tëmb leen ci pisin kër piscine tubaabu jàllawee dugal leen ci naq naq naq ba seen yaram bi fekk dell ak ndox mel ni ñu doon sangu piscine ñu génn leen dugal leen corps inerte ci oto yi dem jël gaal xam nga foofu foofu am na am na ay gaal daw dem ba ci euh, lu ngeen koy lu ngeen koy waxee ci ginnaaw euh, euh, Cap Manuel ñu sànni leen fa ci ci biir. Euh, ndox mi delluwaat raxas seen loxo dugg town gars yi jox leen salaire yi ñu woote gars ay eh, yee ok mat na faat nañ leen ñoom ñaar ñëpp loolu moo tax te ngeen de loolu moo tax ñu naan Jérôme <laughs> eh, Bandiaky wala euh, keneen ak keneen Euh, nu ma ko waxee sax kenn koo xam ne eh, écoutez euh, le clerc du ñu engagé dafa am manam intérim xanaa yow do doo kaawman dafa am ay service intérimaire fa ngay dem ñu jël la bu le clerc soxla day contacter ay ay ay euh, maison intérimaire ay entreprise intérim boo démé fo foofu lañ la jëlee buñ la jëlee yóbbu la comme comme ñu ñuy dimbale ñi nga xam ne mus ñoo dugg ci avion wala mus ñu xamuñu kaw. parce que gis na kenn ko naan oui clerc malheureusement musul embauché xam nga dof dof yi moom dañoo bëri xamuñu dara musuñu voyager ay saretu mbam lañ xam ay ay fas xam nga bon yu bax la mais musuñu voyagé xamuñu dara ci aduna wa wala voilà ko yoy yep ay maison intérimaire la yo xamni fa lañ lay jëlé après dem yobul la fenen wa nañ ñu nañ dimbalé yenn dof yi rek yenn dof yi après ñu avancer ñun dañu wër aduna <laughs> ben système jaaxalatuñ dund nañ France dund nañ Amérique dund nañ dund nañ fu né <laughs> voilà ok on avance Euh, agence agence intérimaire on avance Kay. loolu damay vais dof rek pour raxas xel après seul monde, seul seul on avance donc mon mi nga Jérôme banjaki. ñu jël leen ray leen Nous leen ci ne gis Fulbert ba Fulbert ñi jël ko yóbbu ko hôpital principal teg ko fa buñ ko yóbbee hôpital principal teg ko fa toog ba mu neex leen waxoon naa leen lépp ne filet de pêche yi ñoo ko créé jël seen filet de pêche yóbbu fële jël seen portable ñoom ñoo leen rey jël seen portable sànni jël seen kii tegay foofu noonu woo Madiambal Diagne Madiambal Diagne xam ne lépp ni Jérôme Bandiaky xamee nu ñu reyee ñooñu parce que euh, bokk na ci ñu dóor ñooñu ba ñuy dee moom ma Diagne est au courant de tout buñ leen di jël di leen dugal ci oto yi di leen yóbbu lépp Madiambal Diagne xam na lépp xam na nu ñu rayee ñoom Jérôme Bandiaky te tamit am na kenn euh, euh, Suzanne wax na ko Suzanne Suzanne wax na lépp Suzanne bu ñu ko ñëwee interroger ko démb la wax daf ne oui c'est déplorable mais dañ euh, oui c'est vrai dañ leen a rey dañ leen a rey quoi waaw parce que dañoo taq ci enquête yi Suzanne Camara moo taxaw wax loolu devant tout le mu ne c'est vrai mu assumé ne dañ leen a rey kan moo leen rey Suzanne Camara taxawaat ne devant laa télé tele Sénégal ne dañ leen a rey kan moo leen rey ñu te kenn wax loowu ko de mu taxawaat ne waaw c'est parce que dañoo takk ci enquête yi kan moo leen rey kon kan la enquête yi génn mu déranger ko kan la gouvernement bi ñoom la enquête yi génn mu déranger leen donc moom Suzanne kamara wax na Sénégalais yëpp ne Macky Sall moo rey ñaar ñi enquête yi nga xam ne dañoo jàpp ne dañ cee takk la moo tax ñu rey leen loolu jeex na di Suzanne Camara bu APR taxaw ci télé ne waaw c'est vrai dañ leen a rey ñu ne ko ah bon waaw ma tey ne dañ leen au lieu mu dañoo lap def dañ leen a rey ils ont été torturés et te allahu akbar ba léegi procureur autosaisirul Suzanne Camara moo taxaw devant sept millions de sénégalais ne dañ leen a dañ leen torturer waxul dañoo lab de leen rey dañ leen torturer ba pare ne waaye c'est parce que dañoo takk ci enquête yi maanaam dossier bi génn ci gendarmerie bi ku leen rey mais loolu loolu loolu rek bu taalul dëkk ba bu dee sénégalais génn ñu mooy ñu génn di ku bokk APR nek ci Macky Sall procureur ba léegi auto saisirul taxaw ci télé ku ko waxon dé ñu nan dénam deewul ku dugg ci ku dugg ci wañ bi nga ne ñeex ma ku dugg ci wañ ba nga ne eh tuuruma ñeex ma de wañ ba rek lañ laajte ñi jogé nañ fi Suzanne taxaw Camara taxaw ne dañ leen ray rey ah, kon buñu non dañ leen ray wa mais lu tax ñu ray leen c'est parce que dañu takk ci enquête yi ku leen ray mussa faal ku leen rey Macky Sall ku leen rey kii nga xam ni ñoom ñoo ñoo Jérôme Bandiaky ñii ñoo leen rey ak gàng mussa faal bi kenn mënu ko dindi le crime n'est jamais parfait ñoom wax nañ seen bopp Sénégal Sénégal jeex na wax nañ seen bopp devant tout le monde procureur <laughs> kaay ma ñëw ci moom Amady ñàkk jom Amady Diouf ñaar ñoo xam ni kenn ki armée génn armée ba léegi defagul benn communiqué un militaire bu bu disparaître bi deful benn communiqué un gendarme boo xam ne mooy gérer les renseignements généraux de la gendarmerie bokk ci dee kenn bind ci benn communiqué allahu akbar dama ne gendarmerie nationale am seen élément bu disparaître bu bokk ci seen renseignements généraux ba suñu jonn yàlla tey bind ñu communiquer. suñu armée nationale seen militaire bu gérer seen renseignements généraux bu disparaître ba suñu jonn yàlla tey armée nationale daful communiquer. laaj leen ma kan moo def communiquer, kan moo génn ne dafa saisir. Amadou Diouf procureur gis nañ kenn ki dee na ba léegi Amadou Diouf génnul wax allahu akbar Senegal ku fay tok té tok ni rek defo dara yo do nit Senegal, soit nga genn xex soit nga genn dekk bi ñaar yoy ñaar yoy rek la yalla may possibilité sénégalais togal xex wala nga genn kenn waru fi tok di am jamm togal xex am fi sa jamm wala nga genn dekk point kep kuy épris de justice waru mëna yewo Senegal Sénégal soit nga tok xex ba am sa jamm ba am sa salam wala nga genn dekk bi armée manqué ben élément defuñu communiquer bu disparaître gendarmerie manqué ben élément bu disparaître defuñu communiquer procureur bi génn def communiqué ne dafa autosaisir ñu gis ben corps inerte bu ñu dóor ba mu sedd guuy dagata ko morceau par morceau yóbbu ko hôpital procureur ne tek ana ana pour ana autosaisir am procureur tek xana boy auto saisir di wër nit di saisir ba gis ko sama portable bi lay wër. ma yor sama portable di woo di woo mënu jot ba gis ko gis ko rek noppi xanaa booy wër di yuux an sama portable an sama portable an ba gis portable di nga ne ah mi ngi mu koy defee début ba ba léegi nee na tekk tekk tekk génnul waxul ni gis nañ benn corps nañ ko autopsie ba pare nag ñoom ñi ñëw ne ne amul autopsie <laughs> loolu la ñu wax de nee non non bi dafa yàqu corps bi dafa yàqu amul autopsie corps boo xam ne deful ci ndox mi une semaine ñu ne dafa yàqu tàggatoo dafa yàqu <laughs> réew mi France instant yi jël nañ koo xam ni ça fait un mois dafa réer ci ndox mi génne nañ ko ñu ngi koy autopsie un mois France nii nii nii France am na français boo xam ne mi ngi ñi ngi ñi ngi kay wax ci média yi ça fait un mois bu mu génnee bu mu bu mu réeree ci géej gi ña ngay autopsie kii deful une semaine ci géej gi ñu ne daggatoo na xeetu daggatoo boo xam ni jën yi lekk nañ ko jën yi lekk nañ ko autopsie mënu fa am nañ ko jël siwul procureur génnul yeyul yàbbiwul waxut te def na woon dafa autosaisir ñu gis kenn ci ñoom doon autosaisir ne mi ngi nii faatu na dañ ko dagg te dañ koo këppati morceau par morceau xoolal mu ne non non non siwul leen amul autopsie day ci kala ndax loolu mooy xoolal enterrez vos morts on avance ayca let's go enterrez vos morts on avance bu la ñu tardel waay suul leen seen néew yi ñu dox suul leen seen néew yi Macky kat leen seen maam suul seen néew ñu dox imbécile Sénégal bëggu leen tous dinaa taxaar seen maam yéen ñëpp suul leen seen néew yi ñu ma rayaat seen baay wala ma seen yaay loolu la Macky Sall def suul leen seen néew yi ma ray seen nday yéen benn par benn xaj yi dee et eh,